بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellusi waat ak yéen ci suñu ñeenteelu daje ci li nga xam ne mooy keppaaru Ramadan fas yéene nañ ko doon def ak yéen bés bu nekk ñu jël trente minutes yoo xam ni dañu koy wéttali ko waaye fàttali koo ko la nga xamee ne nii moo aju ci suñu diini gannaaw ba nga xamee ne nii ay at yu takkoo daanañ am daje ak yéen bés bu nekk ci téereb yàlla bi ca jàkka ja ba yàlla indi li mu indi ñu bëggoon ko remplacer waxtaan yi ba ba yàlla ubbiwaat jàkka ya ñu continuer gi yéen fañ yemoon ak yéen ca téere bi yàlla ba yal na yàlla def ko ubbeegu gaaw ci kattanam ak yërmandeem ñi ngi nekkoon ak yéen di waxtaane suñuy soppee ay jaami yàlla yu kawe ca mooy malaaka borom bi subhanahu wa taala ba yegsi woon ak yéen fi doomu aadama di faatoo mbokk jullit loole ngiree continue ci ak yéen dañuy jël benn xadis boo xam ne bu siiw la lool muy xadisu bara ibnu azib nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam day dañoo ànd ak moom ci benn dëj ci waa ansaar kenn ku faatu ci waa ansaar biñ demee ba toog ca armeel ba ñu koy gasal yonent baa ngi sëgg triste gannaaw ba mu xool kaw asamaan wàccaat na saxaaba yim àndaloon ay waay ñaan leen yàlla musal leen ca mbëggalum bàmmeel moom ci boppam mu ne a'uuzu billahi min azaabil qabr maa ngi ñaan yàlla musal ma ci mbëggalum bàmmeel saxaaba yépp ñoom it àndandoo auzu billahi min azabil qabr yal nañu yàlla mus maa ngi sakku yàlla musal ma ci mbugalum bàmmeel mu ne leen na xam leen ne kenn ci yéen su demee bay faatu yàlla dana ko yónnee délégation malaaka seen kanam yaa nga taaru mel ne ay jant ñu sol yére yu taaru indi la nga xamee ni nii mooy benn drap boo xam ni taaru na xeeñ na ñu jële ci àjjana su ko defee ñëw toog naka noonu ca la seen kilifa gi di wàcce muy malakul mawut malakul mawut bu ñëwee toog ci boppu jullit bi ne ko ay yow jaam bu baax bi ay yow mi yor ngërëmal yàlla sa ruux gi na génn tey jëm ci sa ngërëmal boroom ak yërmandeem su ko defee mu rocci ruux gi ñooñee nga xam ne ñooy malaaka ya waroon daal di koy këf ci ay loxoom daal di koy def ci darab bu tedd boobi ca lii mbokk julit nañu xam ni ni ko yonent bi alayhi salaam ñetti lay bari na ay témoignage ci ay nit ñuy dee ñoo xam ne sax duñu ay borom xam-xam yu mag waaye ay nit ordinaire rek ñu yàlla woon malaaka yooyu ñu wax ko ni ñu nekkal avant ñuy faatu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mën naa ci joxe benn misaal rekk benn soxna su baax suñuy wax kumba seen ñoo dëkkoon ak moom fii ci parcelle dafa feebar ba benn heure mu woo sëram na ko dimbali leen ma ñu jël ma yóbbu ma hôpital mu ne ko waaw lu tax ngay wax li mu ne noonu nañ ma yóbbu parce que ñii ma wër duñ ma fi bàyyi te bëgguma dee ci kanamu xale yi ah ñoom it ñu xamuñu pexe ñu taal oto bi dugal ko dañoo yegg hôpital rek mu faatu loolu nag lu jiitu loolu ngir ma wax leen lu jege waaye ay borom xam-xam yu yàlla may avant ñuy faatu ñu gis malaaka yi ba wax ko ñu ñu nekkal loolee mbokk da ngay gis ni bari na lool ala kulli xaal malaaka yooyu noonu lañ lay jëlee yóbbu la yóbbu la fépp fu ñu romb ci ay malaaka ñu ànd ak yow bañ yegg asamaanu benneel buñ ñëwee ñaan ndigal ñu ubbil leen ñu ne waaw lu ngeen indi ñu ne ñi ngi indi ruuxu diw jaarale ko tur ba gën a rafet malaaka yi na ko marhaban jàmm bu baax ndax ñoom suñu borom nee na bépp jaamu yàlla bépp zikr bu nit kiy def day yéeg kaw asamaan ilayhi yasadu kalimu tayib looloo tax ba jaam bi li muy def ci lu baax yépp malaaka yi dañ koy xam ñu daal di koy ubbil asamaan yi malaaka yi nekkoon asamaanu benneel ànd ak moom gunge ko ba asamaanu ñaareel ñu ñaan digal ñu ubbil leen malaaka asamaanu ñaareel gunge ko ba asamaanu ñetteel noonu la ñuy def ba yëgg asamaani juróom-ñaar suñu borom yàlla nag ne malaaka yi delloo leen ko ci suuf ndax ci suuf laa leen bindee ci laa leen di dekkale yowmal qiyaama bu ñu delloo see ruux gi fekk waa ji rob nañu ko malaaka yi delloo ko ak ruuxam daal di koy toogal fiñ ko toogali suñu borom yebal ci moom ñaari malaaka yoo xam ni seen melokaan ñang na lool kenn ki mi ngi tudd nakiir ki ci des tudd munkar su ko defee ñu toogal ko daal di na ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne man allahu rabbi yàlla mooy sama boroom waaw yow ci ban diine nga nekkoon mu ne man maa ngi nekkoon ci diine lislaam ñu daal di na ko waaw kooku nga xam ne mooy wan ko nataalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw góor googu lan nga xam ci moom mu ne kooku mooy jaamu yàlla mooy yenenti yàlla mi ngi noonu gëmoon naa ko topp ko suñu borom yàlla woo leen ca kaw arasham ba ne hey malaaka yi sama jaam bi wax ne dëgg yaatalal leen ko ci bàmmeelam su ko defee ñu yaatal ko ci bàmmeelam ubbil ko benn fenêtre ne ko gis nga boo jaamul woon yàlla fee la yàlla dogaloon fee la yàlla naroon laa tabbal ci biir sawara waaye comme jaar nga fii neex yàlla ñu ubbi beneen fenêtre ne ko gis nga palais yële dex yële jardin yële loolu mooy nar a nekk sa wàccuwaay ëllëg boo bis penc taxawee ba yonent bi alei salatu wasalaam nee na sax waa ji danaan ay yàlla taxawalal bis penc taxawalal bis penc kon mbokk gis nga nit ki fi mu dee ni malaaka yi di àndeeg moom ànd ak ruuxam googu nañuy wàcc ci bàmmeelam ba noonu la ñuy nekkee ak moom foofu lii lépp ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala mbokk malaaka yooyu heure bu yàlla dogalee nit ñi di dekki fekk sant na israfil mu daal di wal bufte bi mooy béjjën bi lépp lu nekkoon ci kaw suuf dee lépp lu nekkoon kaw asamaan dee loolu it mu lay jàngal mbokk malaaka yooyu dañuy dee mboole seen jibril ak mikaal ak kenn dong moo dul dee muy suñu borom jalla wa ala borom bi ñu ne kullu nafsin zaiqatul mawt bépp bakkan dana masa dee gannaaw ba nag la yàlla di dekkal jaam yi waxtu wu ko soobee nit ñi bu ñu dekkee tiitaange ba dana jéggi dayoo ba suñu borom ne mooy bis boo xam ne lii di liir yi sax dañuy bijaaw waaye su boobaa malaaka yi daañu wàcc ci jaam yu baax yi inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu wala tahzanu suñu borom nee na malaaka yi tedd yi day daañu wàcc ci ñi nga xam ne ba ñuy dund ci kaw suuf dañoo gëmoon yàlla ba pare jub kocc ci yoonu yàlla naan leen bu leen tiit tey bu leen tiisu wa abshiru bil jannati lati kuntum tuadun bég leen yéen àjjana ngeen jëm xam naa tey ngeen ñu mës a gis nag waaye ñun ñoo nekkoon seeni soppe ca dunduk àdduna nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi laxira ñun ñooy nekk seeni soppi bëggoon leen lool bu ngeen demee àjjana da ngeen fa fekk lépp lu ngeen bëgg muy wàccuwaayu borom bi nga xam ne mooy jéggale mooy yërëmaate loolu it mbokk bala ngay jàll xamal ne malaaka yooyu dañoo bëgg jullit buy jaamu yàlla ca loolu yàlla leen ko sant yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na amul benn jaam booy dem ba yàlla gërëm ko lu dul yàlla day woo jibril e jibril man kat kay di fàccam mais sama jaam bee di fàccam day bëgg naa ko mi ngi noonu jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko yàlla ñun dey ñu nit bëgg nañ ko man it day bëgg naa ko fekk yàlla dana ko nanga ko bëgg jibril ne ay yàlla man day bëgg naa ko daal di wàcc ci ci malaaka yi yow mi ma doon topp démb wax naa leen ne jibril mboolem ndigal bu yàlla di joxe moom la ko yàlla jox mu jottali ko malaaka yi mu wàcc ci malaaka yi ne leen héey yéen ñi nga xam ne yéenay malaaka yi malaaka yooyu nga xam ne mbokk seen lim yàlla rekk moo ko xam bu ma la ci joxee benn misaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asamaan day li muy yaatu yaatu yaatu amul fenn foo mën a teg yaatuwaayu loxo lu dul am na malaaka bu fi sujuut di sabbal yàlla jalla wa ala yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na safara rek buñ koy indi dana am juróom ñaar fukki junni ci ay jàppuwaay jàppuwaay bu nekk juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo cay téye muy quatre milliards neuf cent millions de malaaka ñoom ñooy garde rek téye sawara rek ngir sawara ni muy bëmbee bëgg a gaawal lekk la nga xam ne mooy jaam yi doon mooy yàlla kon malaaka yu tedd yooyee da ngay gis ne jibril na leen hey yàlla day bëgg na fàccaam wala bëgg na samba sow na ngeen ko bëgg malaaka yi ne ñu nit kay bëgg nañ ko su ko defee sunu ndaw yi tey jii ni ñuy bëggee Sadio Mané ci àdduna bi yépp am na ñoo xam ne musuñu ko sax gis waaye bëgg nañ tur wi ni ñu bëggee artistes yi nga xam ne ñoo tasaaroo yooyee nga xam ne du mbëggeel bu ñu teg fañ war a teg waaye da ngay gis ni la nga xam ne mooy malaaka yi borom bi ñoom seen contraire mooy képp koo xam ne gis nañu ne sa ngëm sell na say jëf sell na ñoom dañ lay bëgg ngir ngëm ga nga gëm yàlla dañ lay bëgg ngir sellal ga nga sellal jaamu yàlla dañu bëgg kenn ngir turam dafa kawe ci sport dafa kawe ci musique dafa kawe ci lu mën a doon ci mbir yi àdduna di bakkoo tey ala kulli xaal mbokk malaaka yaa ngi noonu doon ñoo xam ne nii dañoo bëgg jullit ñi jullit ñi it war leen a bëgg ca loolu junjoon nañu la ko ci ni ñu waxoon démb ah léegi nag yàlla dajale nañu bi ñu yàlla dajalee malaaka yi ñoom ñooy jël kenn par kenn amul benn jaamu yàlla lu dul yàlla délégué na la malaaka yoo xam ne ñooy xool say dossier su ko defee suñu borom dana leen wax xoolal leen ma suma dossier jaam bi la ngeen di jëkk contrôler muy julli malaaka yi contrôler julli yim waroon a julli ci dundam su julli yépp normale suñu borom na leen tëj leen dossier bi jox leen ko téeréem ci ci loxo ndeyjooram yóbbu leen ko ci mbooloo mi nar a jëm aljanna yal na yàlla boole ñu ci ñooñu waaye bu malaaka yi ñëwee xool julli yi julli yi yépp doon loo xam ne nii dafa manqué dañ ko bëgg a jàpp yóbbu safara sax suñu borom ne xoolal leen ma naafile yi su amee naafile yu baax ngeen remplacer ko farata yi bu ñu xoolee naafile gis lu baax ñu remplacer ko farata yi yóbbu ko ca mboolam aljanna amma nag bu dee xool nañ julli ya farata ya matul naafile ya baaxul suñu borom nee na xool leen dossier yépp ñëwal ba ci contrôle dossier yépp li nga mas a def yépp ci kaw suuf te yonent bi alayhi salaam nee na képp ku ñu xool li nga def lépp ci kaw suuf daañ la mbugal loolu it mbokk danañu bàyyiloo xel ci ne examen bi ñu jëm yowmal qiyaam du ay professeur ñoo koy contrôler du ay inspecteur des impôts ñoo koy contrôler du ay inspecteur d'état ñoo koy contrôler déedéet malaaka yi borom boobu nga xam ne duñu moy yàlla te it du ñu juum ci ndigalu yàlla ñoom ñoo lay contrôler waaye it ñu bàyyi ci xel importance julli ngalla waay mbokk jullit li ñu war a gën a ittewoo suñu dund gi na nekk taxawal waxtu julli bu ñu ko dara yàqal dara ci àdduna ndax ëllëg moom la ñuy jëkk contrôler mbokk suñu rapport ak malaaka yooyu gis nañu ne bu yàlla àttee ay jaamam ña nga xam ne ñoo nar a jëm aljanna malaaka yi daal ñun escorté amul kenn koo xam ni danga dem aljanna wala sawara lu dul dana am ñaari malaaka yu la jël escorte la ba taxawal la ci kanamu borom bi borom bi atte la déeyoo ak yow fàttali la say bakkaar baal la ko jéggal la ko ñu jox la sa téere sa ndeyjoor nga daal di daw daal di wax sa mbooloo ay waay xool leen man texe na amma bu dee say-say bi suñu borom nee na wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid bépp bakkan dina ñëw ànd ak koo xam ne nii moo koy jiite di ko indi ak koo xam ne day seede dañ la taxawal malaaka yi taxaw tim taxaw escorte la suñu borom atte la bu dee jaaroo woon fa neex yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni jàpp leen ko sànni leen ko ci mbugalum sawara loolee mbokk da ngay gis ma nga ci suratu qaaf suñu yenente alayhi salaam daan ko tari ci ajjuma ju nekk ngir fàttali doomu aadama bi taxawaay boobu mu nar a taxaw ci diggante ñaari malaaka ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mbokk malaaka yooyu su dee ne yàlla atte na ba pare daan jël ña nga xam ni ñoo yeyoo sawara daal di leen di gurgur wa siiqa allazina kafaru ila jahannama zumara dañuy dëpp seen kanam yi ci suuf jàpp seen tànk yi di leen diri mi ngi noonu wana suuqul mujrimina ila jahannam di leen diri buñ demee jóor leen ca biir sawara ña nga xam ne ñooy garde sawara am na fa dix-neuf responsable yoo xam ni ñooy garde sawara dañ leen laaj waaw yéen xanaa amu leen woon ku ñëw di leen waar ba seen bisul tey bi ngeen mucc ci ñu ne aha kay walakin xaqat kalimatul azab alal kafirin yàlla day moo kaddam ko moo dogg ci ñun malaaka yooyu noonu la ñuy nekk ak ñoom foofu di leen mbugal di leen dóor ay bol day di leen yóbbu ca ndoxu shajër ya di leen yóbbu ca tàkk-tàkk yi nga xam ne mooy tàkk di leen yóbbu fa ñuy naanee dëtt ya mi ngi noonu di wër di wër di wër mbugal mu tar du dagg guddi du dagg bëccëg su ko defee waa sawara daan ñaan kilifa sawara wax naa la ko dem ñu ngi tudd Malik yaa Malik ay waxal sa boroom ngiree mu mu faat ñu benn yoon rek ñu ñu leen déedéet fii ngeen di sax du ngeen faatu ba faw gannaaw ba dañ woo gardien ya ay yéen gardien safara yi uddu rabbakum yuxaffif anna yawman min al azab ay waay ñaanal leen ñu seen boroom xam nañ ne d'accord du ñu faatu dañu fi sax ba faw waaye yàlla nañu may bëgg benn bis rek ñu noppalu ci mbugal mi bu ko defee malaayka yi ne leen waaw xanaa yàlla yónni wuñ leen ay yonent ñu ne ah kay ñu ñu leen faddu fa wa ma du'aawul kaafirina illa fi dalal ñaanal leen seen bopp ñun duñ leen ñaanal ndax ñaan ñeel yéeféer moom cig neen rek lay mujj mbokk loolu dalay jox benn misaal ci malaaka yi borom bi naka lañuy nekk seen rapport ak yéeféer yi bon yi jaaruloon fi nekk neex yàlla ñooy nekk ñoom biir sawara xaalidina fiiha mbugal muñ leen jëlee yóbbu ci beneen mbugal muñ leen jëlee yóbbu ci beneen xaalidina fiiha abadan yal na yàlla musal ñi ci ñooñu waaye buñ demee ci groupe waa aljanna suñu borom nee na malaaka yi daan ñëw escorte leen escorte leen ñu nekk wafda mi ngi noonu yawma nahshurul muttaqiina ila rahmani wafda mooy utal leen ay waruwaay yu taaru yóbbu leen fa soob yàlla ba baa ñuy yegsi ca la nga xam ne buntu aljanna bu ko defee malaaka yiy garde aljanna ñoo leen di teeru salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin e waay mucc ñeen leen yéen yéen a teeyoon mu ngi noonu yéen a teeyoon musu leen bokkaale seen boroom musu leen dugg ci bakkaaru yu ñàng wala la ngeen ci jot dafit tuuboon ngeen ko avant ngeen di ñëw tiibatum dugg leen ci àjjana ngeen sax fa ba faw mbokk malaaka yooyee bu ñu teeroo waa aljanna bu dugal leen yal na yàlla boolu ñu ci noonu la ñuy nekk nag ci seen biir service xaalidiina fiha abada suñu borom mu ne wal malaaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba daar malaaka yaa ngi noonu di dugg ci pale yi waa aljanna yi lépp lu ñuy lu leen fa yàlla waajal tu leen di bànneexal ñoom ñooy jox ordre li nga xam ne mooy wildaanul muxalladoona yi mooy seen booy yi ñu nekk ñu nekk di teral waa àjjana nekk seen service malaaka yu tedd yooyu nga xam ni démb wax naa la seen taar seen taar kenn mënu koo takk ñooy nekk ci sa service ci ndigalu yàlla jàll wa ala nañuy nekk contraire di mbugal waa sawara guddeeg bëccëg noonu la ñuy nekkee di bànneexal waa aljanna guddeeg bëccëg di leen fàttali coono biñ daloon biñ dajoon ci àdduna ci mun gi ñu muñoon ba mën a yëg si tey ci aljanna loolee mbokk képp koy gëm malaaka war ngaa bàyyi xel dëkkaale ba ngay nar a dëkkaaleeg ñoom fale nga xam ne nii mooy ci biir aljanna mbokk malaaka yi ñi ngi noonu doon ñoo xamee ne nii seen jukkoo jullit da koo war a jukkoo bokk na ci seen jukkoo borom bi mu ne kiraaman barara mooy dañoo doon ñu tedd ñoo xam ne ñu laa biir lañu mooy yii ni ñépp la nga xam ne mooy ak jàmm moo tax ma wax la démb ñi ngi jéggulul waa suuf wa yastaxfiruuna li man fi l ard musiba yi nga xam ne waa suuf ñi ngi koy def malaaka yi du ñu dañ naan ay yàlla jéggal leen ay yàlla jéggal leen waaye rawatina nag jullit ñi ca gëm wa yastaxfiruuna li lazina amanu dañuy ñaan yàlla jéggal jullit ñi loolu it mu lay ñaan jàngal jullit heure boo yégee sa mbokk jullit mi ngi ci tarxiis ci bàkkaar ngal la waaye ñaanal yàlla jéggal ko ñaanal yàlla jubal ko suñu borom it mu ne huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min azulumaati ila nuur yàlla mu ne moo ki malaakaam ñi ngi ànd di li julli ci yéen ca mooy di leen ñaanal jullig yàlla mooy yërmaandeem ñaanuk malaaka mooy jullig malaaka mooy ñaan yàlla jéggal jàmbi yërëm ko ngiree mu daal di jub loolu it nga la waay yow jullit foo tollu del ñaanal say mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci rapport bi ñu am ak malaaka yooyu nee na amul benn jullit boo xam ne yaa ngi ñaan ñaanal sa mbokk jullit ci foo xam ni nii yéegu ko lu dul yàlla yónnee na benn malaaka malaaka bi ñëw tiim la boo ñaanee ba pare mu ne amiin yàlla na la yàlla defal lu mel ni li nga ñaanal sa mbokk jullit loolee kon war nañ baril di ñaan rabbi xfir lii walil muminin wala rabbi xfir lii wali walidayya walil muminina wal muminat di ñaanal jullit ñi mboola seen ca loolu dana ëmb malaaka yeeg jinne yeeg dana ëmb xatta mboolem doomu aadama bi ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf lii mbokk kon jukko la bu ñu war a jël ca malaaka yu tedd yooyee malaaka yooyu tamit noonu la ñuy bëggee jaamu yàlla yi di leen bàyyiloo xel yonent bi alei salatu wasalaam nee na ki nga xam ne mooy jàngal doomu aadama yi lu baax nee na malaaka yi nekk ci kaw asamaan duñu deñ di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala ba xatta jën yi nekk ci biir géej ba xatta xorondoom yeeg yépp noonu it la yonent bi alei salaam bége lañu nee na amul kenn kuy sol aw dàllam génn këram ngir sakku ji xam-xam ci wàllu diineem lu dul mboole mi malaaka yi nga romb dañuy wàcc seeni laaf ngir respecté la comme tey rek benn général bu nekkoon ci benn oto xam nañ ñey bépp gendarme bépp policier bu mu romb nga tóojal ko naka noonu itamit noonu la malaaka yi di respecté képp koo xam ne nii dafay jëm ci la nga xam ne mooy jaamug yàlla mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne malaaka yooyu dañuy jëkkante jëm ci aw yiw dañuy xëccoo sax ngir bind aw yiw yonent bi alayhi salaam ñett nañu ci xadis bu siiw boo xam ne ay Abu Daawud ak Tirmizi ak ñeneen ñu dul ñooñu solo nañ ko mooy suñu borom yàlla mas na ko feeñu ci gént daal di na ko waa Muhammad ndax xam nga malaaka yi nekk ci kaw lu ñuy xëccoo ne mana loolu de xawma ko suñu borom yàlla ca gént ga ak lam ko feeñoo teg ab loxoom ci dënnam mu naa léegi day sama borom xam naa mooy ñi ngi xëccoo far bakkaar yi fil kafaaraat ñi ngi xëccoo yëkkati daraja yi fi darajaat mu ne ko waaw bak kafaaraat yi loolu mooy lan mu ne mooy ñi nga xam ni dañoo baril ay jéego jëm ca jàkka ja ñi nga xam ni dañuy toog ci jàkka ji di xaar julli gannaaw bañ julli ak ñi nga xam ni dañuy matal seen njàpp ci jamonoy sedd moo ko xadis bi maa ngi koy wax ak yéen ci jamono joo xam ne nii jàkka yi àdduna bi la ci ëpp tëj nañ ko ci mbas mi nga xam ne nii wàcc na yal na yàlla nangul ñu suñuy ñaan nangul ñu ñaani malaaka ya ba xéewal googu ñu mën koo delluwaat di ko am gannaaw ba suñu borom na ko waaw lu ñuy xëccoo ci yëkkati daraja yi mu ne mooy ñi nga xam ne nii dañuy leele aw ñam ay yéen mbokk julit ñi ngi toll ci jamonoy koor dañuy leele aw ñam ay waay yooyu mi yàlla may seetal ay julit ñoo xam ne li la yàlla wërsëgal man nga caa jël jox leen ca ñu dunde ko ci jamonoy koor ji rawatina jamonoy corona ji su dee jafe na ci yow xoolal ña nga xam ne da nga leen a wóolu nga jël xaalis boobee teg ko seen loxo ne leen sama jubluwaay mooy nañ ci leel julit ñi sa yool yàlla bindal na la ko fa man baddalahu fa innama ismuhu ala allazina yubaddiluuna suñu borom nee ne ku soppi bakkaar ba ma nga jëm ca ko soppi waaye yow la nga joxe ci yàlla tax moom sa yool yàlla bindal na la ko lii kon mbokk di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel lu ñuy xëccoo ci daraja yi mooy ñu ngay xëccoo daraja yi yëkkati ñay joxe aw ñam ña ngay xëccoo daraja yi ña nga xamee ne nii dañuy tasaare ab nuyoo ci seen biir nga la waay julit foorom bu sa mbokk julit nuyu ko waaye ña ngay xëccoo ña ngay xëccoo ci daraja yi ñay taxaw guddi di naafila ay yow mi nga xam ne daawoo naafila guddi naka jekk ak yaakaar naa ne loo sàggan sàggan weeru koor bi moom danga ko naafila maa ngi ciy profité it bu leen jàpp ne naafila yi ca jàkk yi rek lañ ko war a defee yow mi nga xam ne guddi gu ne nga masaan jël sa sijaada dem ca jàkka ja ngalawaay maa ngi lay ñaax heure boo jullee gee ba pare jógal julli juróom ñetti rakka lu la neex jàng ko ca bu la neexoon sax rakka bu ne nga jàng ca ñetti xul wala ahad rek wala juróom wala lu la saw soo paree ci juróom ñetti rakka yi nga def sa shafa ak witre loolee saxal ko ngalawaay bu la ko ñàkk dem jàkka di xañ kon loolu la malaaka yi di xëccoo heure bu ñu gisee jullit ma ngay matal njàppam ña ngay xëccoo pour far ay bàkkaaram ma nga toog ca jàkka ji ña ngay xëccoo pour kuy far bàkkaar yi ña ngay nekk di dox ay jéego jëm ca jàkka yi ña ngay xëccoo pour ku koy far daraja it ña ngay xëccoo di yëkkati daraja di bindi point ña nga xam ne ñooy joxe aw ñam di bindi point ña nga xam ne ñoom ñooy tasaari niw di bindal ay point ña nga xam ne nii ñoom ñooy julli ci guddi ci jamono bi nga xamee ne nii nit ñi ñi ngi nelaw mbokk loolu kon ba tey ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy wax ci malaaka yooyu cofeel gi ñuy am ci doomu aadama ak ni ñuy ittewoo doomu aadama loolu keroog xare badr benn ndaw ci ndaw ñi ñu ngi koy tuddee Hanzala ibnu Rahib ay yow mi nga xam ne yaa bëgg ay médecin ay ay médecin ay yow mi nga xam ne yaa bëgg suñu musicien yi ayow mi nga xam ne yaa ñee suñu milliardaires yi ngalla waay bàyyil xel jeune boobu hanzalata ibnu rahib yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xare badr bi ñu xaree badr ba pare ci ñi daanu woon ca xare badr mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam gis hanzala malaaka yi di ko sang mu ne ay yéen sahaaba yi su ngeen demee laajal leen ma soxna hanzala lu tax malaaka yi di ko sang fekk Hanzala da doon doog a am benn séet séet bi siisi ba mu àndeeg séet bi léegi mu digg waa ji nga xam ne day woote ci jihaad naan ñëw leen armée baa ngi départ armée baa ngi départ mu ne bërët daa di sol la nga xam ne mooy tenue de guerre am gàddu ay armeem daa di dem fàttee sango farata daw dem armée bi ba mu demee bokk na ca ña nga xam ne ñoo fa wane njàmbaar ba faatu fa yàlla subhanahu wa taala ngir teral ko wàcc ay malaaka malaaka yi ñëw sangu ko ñu doog koo jël suul ko comme nañu sange woon suñu bay aadama bam faatoo yàlla ay malaaka la wàcce ñoom ñoo ko sang kon loolu mbokk dañuy won affection bi nga xam ni yàlla ngi ñu koy won di mandarga bu ñu war a jële ca malaaka yooyee mbokk gis nañu ne malaaka yooyee la gën a am solo ci loo xam ne fu ñu mën a toll war nañ leen cay roy mooy suñu borom yàlla da leen a tagg ñi ngi sabbal guddeeg bëccëg duñu dog seeni sabbal ay julit sa làmmiñ bi ba mu dañ mukk di tooy ci turu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waay ñëw na wax ma loo xam ne dama ciy sax ca mu mën ma yóbbu àjjana mu ne ko sa làmmiñ bu mu dañ mukk di tooy ca la nga xam ne mooy turu yàlla lii mbokk gis nañu ne mooy la gën a am solo lañ cay fàttalikoo lañ cay jeexale it mooy yow mi may déglu ak foo mën a nekk ci kaw suuf xamal ne foofu nga toog yow mi nekk sa oto yow mi nekk ci yoon ba xamal ne ay malaaka ñi ngi lay escorté kiraaman kaatibiin seen itte yépp laka leen seen boroom mission bi leen seen boroom sant mooy ñu xool la lépp looy def lépp looy wax ñi ngi nekk di ko enregistré ëllëg yowmal qiyaama ñu bind ko ci sa téere ñu nekk ko di ko seede ñii nekk ak yow ñii bu tàkkusaane daan yëg kaw asamaan yàlla wàcce waat yeneen ñu nekk ak yow ba fajar jot noonu ngay nekke ba baa ngay dajeeg sa boroom yal nañu yàlla jëriñ ci waxtaan bi ñu waxtaan ak yéen ci malaaka yi yal nañu yàlla boole ñu gëm malaaka yi nañ leen war a gëme bëgg leen nañ leen war a bëgge roy leen nañ leen war a roye yal nañu yàlla boole ci ñay malaaka yi dugg seen pale ci biir aljanna di leen wax salaamun aleykum bi ma sabartum fa nihma uqba daar وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته